auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eh, ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu yëkkate ay kàddu di nuyu bokki jullit yëpp bokki Sénégal yëpp bokki taalibe yëpp Cheikh Mouhamadul Muntaxa ginnaaw bu mu nuyoo ñëpp ñu ci toftal cant ak ngërëm ngir ànd yu mu ànd ak bokk yi rafet na lool muy bokki jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi yëpp lépp lu mu yëkkati yéene ko ci lu baax dame ko ci bindee fi ñëpp ànd ak moom ca loola loolu yëg na ci bu baax ak cant ndax ginnaaw liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek la bëgg te Sëriñ Tuubaa bindeef yëpp la lu yërëmoon bindeef yëpp la jaboote woon Sëriñ Muntaxa lool rek lay gis lu muy dugg lu nekk bindeef yëpp la ci àndal bindeef yëpp la ci tàllal loxo tey nag mu yónni waatoon Sëriñ Maamoor mii nga xam ne lépp ma bokk ci jëwriñ yu yu baax yi koy jàppale liggéey bi bokkam yu baax yi mu àndal liggéey bi kenn jiitu ko ci ci yitteem ak pasteefam ak taxawaay bu rafet waxtu mu nekk itam sëñ bi di ko yén yónni ay kàddu yoo xam ne yu waroon waxal boppam la sëñ maam da ko cee doy ba nga xam ne waxtu wu ne sëñ Maamoor dama waxal nangam rek fekk na loola xam na ne bu ko ci sëñ Maamoor wuutoo dana ko defal na mu ko bëggee te lépp itam nag dellowaat ci liggéey bi lépp delluwaat ci lu jëriñ bindee fi def lépp delluwaat ci lu baax rek lay doon ndax bu ngeen ko seetloo lépp lu mu yónni sëñ Maamoor mii njàngum alxuraan moo ci jiitu lu jëm ci alxuraan ak xasida ak manqué la bindee fi ci lu jëm noona wax lépp moom la koy liggéeyloo ndax bu ko waxloo ci rajo it ma ngi ko cee liggéeyloo ci biir dëkk bi ca daara yi ndimbal yu ci jëm taxawaay bi taxaw alxuraan taxaw daara yi loolu yi sëriñ bi de ko ci liggéey loo waxtu nekk moo tax tey ji mu yónniwaat ko ay kàddu yoo xam ne dafa jëmaat ci bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki réew mi yëpp ngir ñu waaj wàccaay yoo xam ne ñëpp cee war a dellu te sëñ maam moo dana ko leeral ci dellu sëñ bëgg ñu dellu ko ca tool ya waaye na ko sëñ bi xalaatee na mu ko bëggee nag sëñ Maamoor moo koy leeral kon ñu bokk déglu ko bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ngërëmul yàlla gën di wàcc ci Serigne Touba ak waa këram noo ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadoul Mountakha alxalifatul am li tariqatil muridiyya jëm ci jëm ci nun mboolem taalibe yi waaye jëm ci mboolem réew mi jëm ci mboolem jullit yi muy ni mu ko baaxoo defee at mu jot te kilifa tedd yu baax yi ko fi jiitu yëpp daa ko def bu waxtu liggéey jege mu soññi taalibe yi soññi jullit yi ñu raxasaat seen xol defaraat seeni i seeni bang-bang tuub dellu ci yàlla tàmbali liggéey yi nga xam ni mooy liggéey nawet bi te mooy ruuj mu wax ni dafa bëgg gaaw bi nekk xeecal weer wi di ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru saxbaan baraxlu moom la bëgg ñu tàmbali ko ca wax na ni nag dëgg la ci mbay la ko tàmbalee muy ruuj bi waaye liggéey mën naa làmb liggéey yépp mu ñuy yeexantu ak borom métier yeeg ñëpp nañ defaat bis boobu nañ ko defoon daaw ak daaw jéeg ak ak at yi yépp mu nekk seen bisub tàmbalib liggéey te am ci yaakaar bu baax a baax a baax mu wax nag dafa bëgg ngir liggéey bi barkeel mat na mat mat sëkk bëgg am nañ ko bëgge dafa bëgg ñu tàng tàmbalee ko ci kuy koo xam ne xëy nga ci gaawo bi nga loo mën ci alxuraan ak xasaayit nga jàng ko def ko muy sab tàmbali bi liggéey rawatina nag daaree alxuraan yi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi ku ci xëy ci gaaw boobu mu ñaar fukk juróom-ñaar yi loo mën ci alxuraan nga jàng ko ci fasa fasa daara borom kër yeeg ñëpp itam ñi nga xam ne bëgg nañoo dem ci tool yi ñëpp ku ci xëy boo mënee jàng alxuraan loo ca mën ak xasaayit nga jàng ko door a xëy ca tool ba tàmbali wax bisimilah yi te euh, euh, fas fas ci tuub fas ci wéetal yàlla fas ci topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi ndax wax na yoonu murit jaamu yàlla la ak liggéey liggéey mooy tax nga mën a am loo jaamoo yàlla liggéey mooy tax nga mën a joxe addiya liggéey mooy tax lépp loo xam ne ki bëgg ko def ci lu baax nga def ko moo tax waxtu waxtu liggéey jotee rek mu bàyyi lam doon def lépp jublu ci soññ taalibe yi soññ bindeef yi soññ jullit yi ñëpp ñu bokk raxas suñuy ndab te mooy ruuj tool yi ba mu set wicc ñu toog néeg yàlla te yaakaar ni lépp luñ ci bëgg suñu borom dana ko defal boo gisee ne mu gën euh, waxtu mbay rek la koy tàmbali mbay day liggéey boo xam ne bii dafa barkeel te te te gën te lew liggéey yëpp baax boo ci def ngir yàlla te yàlla tax ak bëgg loo jaamoo yàlla liggéey yëpp baax waaye nee na mbay dafa gën dafa bokk ci liggéey yi gën a lew te gën a barkeel te sëriñ bi gënoon koo fonk ba moo tax muy wax mu siiw wii naan wajaal li ahli zarai wa tijaara iaanatan aw yaxluwu loolu ak ñaan la goo xam ne gi ñoom ñoom moom loolu la làmb kon moo tax mu bëgg ñun ñëpp ñu futtiku dem ci tool yi liggéey yi euh, ndax murit du wàcc murit du noppalu murit jaamu yàlla ak liggéey la xam ak lépp loo xam ne sëñ bi bëgg na ko mu taxaw ko mu taxaw ca loola te lool li li koy mën a may nag mooy nangoo nu nangoo liggéey liggéey yi di ci gën wax na ko mooy mbay moo tax waxtu wu jotee rek mu jiite ko ci liggéey yëpp waaye nag teg ci liggéey ci des yëpp nag liggéey ñu liggéey ngir yàlla yëpp ngir bëgg loo jàmm yàlla bëgg loo taxawoo sa njaboot bëgg loo joxe addiya liggéey yëpp la bëgg ñu tàmbali ko ci ci ci ci bis boobu di ñaan nag ci barkab sëriñ Tuubaa mi fi nekkal te wóor na ko ni sëñ sëñ yaakaaram tas ci moom ndax ginnaaw mu sëñ Tuubaa moo wax ni rajaa uman bi taxan laxa yuraa muhaqqaqan wa maa yasuu lan yaraa kooku bu koy wax murit yëpp moom waaye rawatina moom mi ko fi nekkal kon nee na mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba moom mii suñu borom defal ñu nawet bu teel bu tooy bu barkeel te muurloo ko di ñaanal mboolem bokki jullitam ya bokk kilifa yi diinam yi nga xam ne ñoo bokk diine ji bokk liggéey bi ñoom itam ñu bokk ñaan loolu yi mu ñaan suñu borom dimbali nu ci may nu ko te dàq fi mu ak balaa indi fi jàmm ak salaam ci barkeb atahamahum min joohin wa amanahum min xawfin ndax ñaare yi moom réew mu am rek lépp baax atamahum min juin wa amanhum min xawfin loolu la wax waa Makka ba tax seen jàmm jee ñu nekk fa ñu nekk ca nee na fii itam yàlla fi yàlla def loolu mi ngi koy ñaan di ñaan suñu borom defal nu tawféex defal nu euh, ak mucc defal nu gudd fan ak yaram ba lépp loo xam ne di sëriñ bi daal na ko dénk daal na ko daal daal na ko santaane nu mën koo def nan ko bëggee ci barkeb sëriñ Tuubaa waaye moom itam ñu wëlbati ko nu ñaanal ko suñu borom jàggal ko fi te ko defal ko jàmm di may ko kattan tëbb ko tëbb tëbb ko lépp loo xam ne bu ko bu ko amee lii mu yéene jullit yi muy jàmm rek di nitu jàmm la nitu jàmm goo xam ne kii léppam jàmm la lépp lu mu wax mbaa mu dox ko mbaa mu wax ko jàmmi taalibe yaa ngi ci jàmmi jullit yaa ngi ci jàmmi adduna see ngi jàmmi réew maa ngi ci jàmmi adduna see ngi ci kon ñu ñaanal ko baax a baax suñu borom jàppal si dimbali ko mu wax ni itam mu ngi ñaan ñi mu bokk Sëriñ Tuubaa te di bokkam te te bokk liggéey bi ñaan yi mu ñaan yëpp mi ñaan ñoom ñu bokk ak moom ñaanandoo ko ak moom ñaanandoo ko ak moom seriñ bi ci barkeb seriñ bi suñu borom defal na ko defal na jàmm defal na tawfeex ñu teewe ko at yu bare bare bare bëri ci barkeb sëriñ Touba wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tabaarakallah jot na sëkk sëriñ rafet na lool nii rek la ko sëriñ bi waxee woon nii rek la ko bëggee woon itam mat na sëkk kon bokk yëpp déggandoon nañ ko noonu ndax sëriñ Muntaxa yéene juré ji ma am ak poste bi ak taxawaay bi waaye sëñ Maamoor leeral na lépp nag leeral bi yéene leeral na liñ dëgmal leeral na liñ ci war a sooboo ak nii mu ko waxee ñëpp bàyyi ci xel ku war a xëy kenn ku xëy ci gaaw ko ne la nga nekkoon da ngay mel ne ku cee waajaat du soobuwaat soobu ko yees goo xam ne poste foofu tàmbaliwaat nga cee am tàmbali gi dégg ngeen ko suñu maamoor waxee kenn ku ne la nga mën jàng ci alxuraan ak xasiida boo xëyee na nga ko ubbi ko bala ngaa dem tool keneen kuy defi leneen lu nga jaay na nga jàng alxuraan joom la nga ca man jàng xasiida gi nga man daara it kenn ku suñ <coughs> daara bu ne nañ xëy jàng alxuraan ñaan mu ko waxee rek si <coughs> bi da koo tàmbalee ci mbay waaye yëngu yëpp nii mu ko waxee itam ci mujj yi atax amoo min ci wa amanu min xawf ne ko ñëpp di ñaan bu ñu doom joxee xéewal gu nuy gu dunde ba xiif du am rafal du am ja dara du ja du am ja jàmm am joo xam ne kenn ku nekk xam nga ne yaa ngi ci kóolute gu wér ah, boo boobaa alhamdulilah nii mu ko waxee rek axir daawana alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax boobaa kon nag jërë ngeen jëf li nga ñaan li nga ñaanal sëñ Muntaxa yàlla ko suñu borom nangu te ngeen bokk ko yéen bokk mi ak jullit ak taalibe yëpp li li li li sëñ Muntaxa yéen ñaan ko itam te nga wax ne na ko bokk bi ñaan le na ko bokk yi ñaan le na xam nañu boobaa su borom da koy nangu kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu